ndewoy alaykati mangala am solo kaddu yi nga suñu kaddu ci ak ku ci nekk li nga sa avantage sa sa faiblesse li nga ci combat bi mais mi ngi waaw euh, di rek yaayam dina ci semaine bi ah, waaw dinañ ko ci semaine bi bëgguma laa wax kañ la sax ñu mel ni dama damaa far ak yéen. waaw ah, mais nag bokk ci gerte ah, xëy na moo ko dama wax ko ci téléphone ndax bañ Sidi yëpp daja fa ngadele xam nga si te fi ne léppam événement lay doon. mais daal ci semaine bi yaayam dina ñëw dinañ ko ngadele. mais bu ma ko waxee ni yéen ñëpp a leen di damay bañ loo ramat sans site ñëw fa su duñ tal ngadele gi. loolu laay bañ. <laughs> su ma dee résumé carrière Siteu bi nga koy yor mu nekk xale nekk si yow su jógee entraînement nga jël xaalis jox ko pour mu lu mu reeree ak tey fi mu toll ci biir làmb tey waaw dara jomb ko ndax xale bu gore la ndax du moom rek laa formé moo gën a tuuti ci ñi ma formé waaye kenn gënu ko cee gore fàttewul démb fàttewul démb xale bu baax la ah, ndax man li ma sonni ci ay mbër bëri na formé naa ba formé ay roi des arènes li ma forme ci mbër ëpp na cent lutteurs ëpp na ko taman ben benn siul ma andak yow ku ci ne damay andak bi nga dara ba nga don dara lima formé bu ma lim duñ fi joggé mais kenn gënu ko ci gore waaw. amna ñu jaar sa loxo. dina fa ñew ci kaw Bombardier mais ci bir Lamsar ku ci mel euh, Sentel Baye ndjay euh ness la ak keneen ak keneen ak keneen ñi ngon ci écrit bi xalé bi ñew fekk leen fi ndax amon nga yaakar ni tay site dina tollu tay fi ci lam wala mu raw. ci yaakar ndax ñu nga tuddu ñep ay lañu. bëgg leen a tax xam ne ay ndaanaan lañ mënoon a dem beneen écurie mais gis preuve yi ñu doon def moo tax mu ñëw euh, nees fekk ko géej muy entraîné mu jàpp ko andi ko ba mu ñëwee ne ma seetaanal xale bi ma xool ko mu doon ci kilit booy booy bu sew mais ma gis poids léger yi pour mu daan ko day métti ma xam ne ku mën a bëre la euh, gis nga bàyyi Ndiaye day daan Siteu contact di ko daan contact jour bi ko Siteu daanee mu naan oo oh, Siteu na ko waaye Baye Ndiaye doo gore li nga ma daani yëpp <laughs> waaw nga xam ne ñoom ay xarit lañu ñoom ñëpp ay xarit lañu waaw mag day jiitu rek rakk topp ci lamsaar loolu la ñuy dundee mhm. dana am problème sax mais dañ koy régler ci biir mhm. waaw écrit yëpp day am problème mais kër kenn du ko àtte ci pénc doo dem ca problème ba nga tax wax ko ci site bi ñee dem na ko kee dalaa xas mu dem tontu day indi leneen ku jalgati da dem wax ak moom ne ko lii ñoo ko moom ah, buñ ko yàq bu ko defee ñu dañuy ñëwaat rek ñu àndaat doon benn eh, ñoom noonu la ñu àndee bu koo wax mu ne du ma tëdd fiil ko ne xam ne ne si tax ci ëppoon la muy fayu ba mu jàllee neese ci ëppoon la muy fayu te koo ci wax mu ne du ma tëdd fiil loolu la ñu gëm ñi nga tiijaan occasion bu ne bëri na ko ji nga sentel gis nga fëgala ji nga super étoile ji nga ñoom tigre mais ñu ànd rek doon famille ji nga ji nga coins waaw koo wax mu ne du ma tëdd fiil maanaam boo amee combat sax mag ñee la koy gën a bëgg waaw même ñi nga gisul ñu ñëw dañuy jàpp ci entraînement yi dañuy ñëw sa kër yi yendu fa ñeneen ñi ñëw ñi ne ci stade bi ñu des ci kaw ñu lay pousser vers la victoire boo amee ndam wala nga am boo ñëwee entraînement dañuy arrêté entraînement yi ñëpp tàccu la a continuer lol famille la lamsar famille la famille la waaw mhm. muy lu am solo mais dañuy gis euh, Siteu moment bi mëno wax ci lamb te do tuddu Siteu ak fu mu ci bir lamb te bi mu ñew ci bir lamb comme ni nga ko wala ci bir écurie bi boko xolé sax matul 1 kilo 500 tay mu tollu fi ci bir lamb lu ko may wa li ko may moy entraîner gëm bopam benen bi mo and ak dimbalal suñu borom da ngay don daanaan yalla du def sa wërse ci lamb mhm. ndax da dafa ñew rek yalla def mu am wërsëgu làmb mu anda ak gëm-gëm nak et ki ñu encadrer ko diko tok yon mu nangu ñu yilif ko nak mu nangu ñu yilif ko waaw euh, ba bu juumee sax boko ne mu ne père de maangi jéglu bu ëlëgé dootu am ñu encadrer ko tek ko ci yon parce que siksebi, mi moom moom succès bi mbeur mi mom xaaliss bi moom moom yi kon kiy wax ak yow da ko wara déglu ah, ndax mbeur mi euh lepp mom moko mom kon kuy wax ak yow déglu ko si te nag nangu na bi mu bëgg ay xalé té xalé ngiss la. si surtout xale yi mën nañ ko yendal fu ne waaw koo gis mu bëgg xale rek mën naa am lu ne waaw. bu ñu taxawee ci carrière tuuti combat bu ñu gis boo xam ne moo ko war a déclencher yóbbu ko ci kaw VIP rek yu si bëri ko échec loolu lan la. waaw non xam nga loolu sax gars yi dañuy waxee noonu mais bu doon loolu du agsi ci niveau bi ah, mosut a tegale kii bi la defee euh, muy daanu ci Boy Sey booba day day day yéeg di commencer def ay ay ay ay preuve am mais yëggagul ci benn kii bi. mais benn bi mais bi mu daanee Zarko ci la daanu ci Sa Thiès daanu ci guy gi euh, non no waaw door sos mu daanu doo ko daanu ci guy gi mais tegalewu ko mais ni ñi dañuy defee ne dafa tegaloo bu ci ne day daanu ah, daan keneen doo ko ñëwaat mais Sa Thiès ak guy gi nga xam ne ci la waroon a yéegee parce que bi mu daanoo ci Sa ci la Dóor sos mu daanu dellu si daa daanu daanu ci guy gi waaw mi ngi defarwaat nag jëlaat Papa Sow. ñu koy euh, ñaan rek mu am ci ndam pour fi mu bëgg a yegg mu yegg fa mais cumulewul defet yi cumulewul defet yi waaw tegalewu ko dinaa fa taxaw muy ju digganteem ak euh, Papa saw combat bi jàppoon nañ ko bu ñëw ci biir làmb ji def li ñu war a def lépp ñu gis li ci xew combat boobu appareil loo ci jàng per waa li ñu jàng mooy di gëm dogal suñu borom di masawu président euh, promoteur bi ndax bëgguñu woon mu demee noonu ndax li ñu bëggoon mooy mu tëggu ko ci jàmm mu jeex ci jàmm yàlla defal ko ci ndam événement ba nag fees na del neuf combats yi jàll na ba mu des benn yàlla ñëw ak dogalam xëy na looloo soob suñu borom mais ñi ngi ma masaw promoteur bi euh, di ko ñaanal moom it ndax papa euh, Pape Abdou Fall werante amul ci ne bi promoteur yu mag yëpp bàyyee moo toog ne du ma bàyyi làmb dee liggéeyam sax mayu ko ko jotom ci la ñëw nag di tëgg événement yu mag yi ngir bañ làmb dee kon kooku yeewoon na jërëjëf Euh, motax yene wuñ ko won lolu mais nak jaam ak pexe mais dogal bi suñu borom a yor lolu soob suñu borom euh taggo nañu ñu dem witi leen benen promoteur soxla ko ñu wax ak mom ba jibo mu jox ñu avance ñuy wajal combat bi le 6 novembre. fan ngeen tollu seen digënté ak Papa saw wa Papa saw euh, jël nañ suñu avance. Mhm. ñi ngi wajal dañuy xaar saison bi bu tejé le 15 août. Mhm. octobre mu ubi ñu renouveler licence régulariser combat bi mu euh, officiel promoteur bi mo xam plan de communication nan lay tëral mais ñun xalaat nañu dina dina Siteu dina tukki préparé bu ko defee bu desee euh, loo ramat ay weer ak lu teg rek wala deux mois mu dellu siwaat ndax promotion combat bi da cee war a jàpp ci côté promoteur bi ak it waajal ak écurie ñu waajal combat bi di ñaan ak yàlla may ñu ci ndam te ñu ngi ciy am yaakaar baax na. ñenn ñu ne ndax Siteu jël bu mu jël Papa Sow nekkul risque tuuti ci carrière. non mu mënul doon risque Papa Sow mbër yëpp a dajeeg moom. Papa Sow du n'importe qui ci làmb ji waaw mënoo daanu ci guy gi jël Papa ñu ne risque la et puis euh, Siteu su mënta daan Papa bu ba yóbboo witi leneen waaw. mais làmb la bu xamante ne bi dafa yor inde inde te bu ñëwee sa garag lay dugg. lu mu indi dinañ ko soor hmm. lu mu indi dinañ ko soor mais xalaat nañu ne lu ñu def ñun dinañ am ndam yàlla dina ànd ak ñun. Hmm. ñu ngi ciy am yaakaar bu baax la ma la waxoon rek Siteu bu mënta daan Papa bu yóbboo witi leneen. parce que mënoo dëkk Ama Baldé ñu dox ko ba mu sori problème mu caché moo leen tàggale Papa Sow ñëw bëriwul ak Ama Baldé cinq minutes soo jëlee Papa Sow xalaat cee daanu dañ naan da yàpp nit ñi mais papa mi nga doon ah, Ama mi nga doon dëkk du sa morom ñun suñ ba teguñ ko sax ci Papa xalaat nañ buñ paree ci Papa leneen li ñuy jëli waaw teewul nag ñu respecté ko ndax Papa Sow du n'importe qui euh, am na jom am na fulla am na fayda te fonk na kombaam te du waaw gis nañ boobu léegi mi ngi ci ay séance d'entraînement ànd ak waa Rock Énergie ak waa jàmbaar produit waa jàmbaar académie ak Roi des Arènes bi ñuy liggéey lu métti métti bañ jàpp ne sax ñoom suba sax seen combat ak Siteu waaw noo ñun pare nañ ñoom moom lañ gis rek moom hmm. lañ gis Siteu nag fi ne gis ko yombul waaye bu ko papa papa Sow mi jëm mag hmm. su ko fonkee ñaar hmm. Siteu lu mu ko war a fonk moom xanaa fukk la ko war a fonk moom fonkee benn fonk nañ ko ñaar fukk te euh, bu ñu ci yàlla yóbbee bu ñu sumee ko danañ xam ne fonk nañ làmb ja waaw. seen carrière xam nañ ko ci combat bi. noo xam nañ ko bu baax déggoo li ma la wax bu ñu mënta daan Papa Sow bu ñu yóbboo bàyyi witi leneen loolu rek doy na. ndewoy ndewoy say maane ndewoy alaykati ka mangala yaare ndewoy say Vous êtes jeune bachelier, étudiant ou professionnel. Vous êtes créatif, ingénieux et passionné par les domaines qui gouvernent le monde de la science et de la technologie. Profitez de l'offre de formation dans les filières telles que réseau et télécommunications, statistiques et informatique décisionnelle, gestion des entreprises et des administrations, gestion logistique et des transports. Cela vous est offert par Ziguinchor Institut Polytechnique, ZIP. Les inscriptions sont en cours et se poursuivent il est encore temps d'effectuer vos démarches pour une admission dans l'une de nos filières. Pour plus de renseignements, visitez notre site web www.zip-du6edu.sn ou par mail secrétariat-du6edu.sn, téléphone au plus 221 33 991 00 68 ou au 77 460 16 09.